ami et cher internet univers info tv di leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaar waaye di leen jox seen wàccuwaay euh, di leen euh, sargal bu wér weer ci ànd bi nga xam ne moom ngi ànd ak univers info tv ñu nekk plaisir saa su ne di ànd ak yéen euh, saa bu actualité amee comme ni ñu ko sàmmee di def dañuy daw seeti les concernés waaye dalal ñi nga xam ne ay ndaanaan lañu ku ci mel ni ki nga xam ne Thiat Seck nekk na ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté donc sans plus tarder koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu daal jëm ci li nga xam ne moo di waxtaan bi Thiat noo maa lay bëggee euh, di la bëggee bu baax di ziar télé bu mag bi ma jàkkaar lool di bu baax di ziar euh, àdduna bi yëpp di ñaan jàmm yàgg ci réew mi di ñaan mun Mountakha Mbacké mu yàgg fi kilifa diine yëpp yàgg fi ci barke Serigne yu Mbacké di ñaan samay soppee yàlla boole leen ci milliardaire Serigne Touba yi ñu yàgg fi di ñaan tëdd si biir suuf yàlla xar leen àjjana di tëdd si lalu yàlla na jóg ñu wér di yàlla nañu wér ci barke Serigne yu Mbacké ñi caabi fete ginnaaw yàlla nañ fa génn te buñ fa génn yàlla buñ ko xamati ci barke sëñ Saliou maa ngi bëggee ñëpp di la ziar bu baax. Thiat dellu ziar bu wér a wér ñu gëj a gis nag Thiat Seck vraiment ginnaaw bi mu fi amee woon coow yooyu sax su di passé mais gëj nañ ko gis ci li nga xam ne moo di showbiz bi lan moo war a raarate boobu. non showbiz bi da nga koy wàññi showbiz moom man damaa xamul ay showbiz man lu baax rek laa xam jéem a jël lépp teg fenn teg fële rek jéem a liggéey nekk ci li ma war a nekk ànd ceeg Assane. suma manager mu doon nit ku baax ànd ci Idi Barou Assane Ndonga dal jàmm maam Malick xam nga wele bàyyi ngaala nekk sama liggéey ak bili di leen déglu mm-hmm. ndax ñi àndal déglu leen rek mooy lépp kon yàlla na jàmm yàgg man loolu rek laa nekk si si loolu laa nekk quoi fi mu nii. est-ce nekkul tamit euh, maanaam coow bu ñu fi amoon ak ki nga xam ne moo di euh, Wally Seck ci ñàkk dégg bu fi amoon moo waraloon car daal di toog ci coin am parce que wax yi bëri woon na trop tamit ci li nga xam ne moo di côté waaw Wally daa doon nit ku baax doon champion di gaynde di Baye Fall xolam rafet ñu bokk xol moom muy sama rakk doon nit ku baax tey nit mooy jum waaye yàlla suñ borom rek moo dul juum nit dina juum am na woykat bu ko woyoon waaye après dañuy nekk ci li ñu war a nekk rek nekk ci liggéey soo juumee nangu na dangaa juum ñëpp dañuy xam ne dangaa juum te ñëpp a ah, d'accord képp ku la bëggoon sax day ñëwaat Waly sama rakk la nit ku baax la tey te dañoo séq ay teraanga yoo xam daf ma koy defal ba ñu muy àndal ñoom Njoogu Mbay Tumaane képp ku muy àndal rek ku lim juum bàyyi jaal loolu lañ may defal tey soppee Waly dañ maa bëgg ndax Waly man ñi ma bëgg dañ maa bëgg ba bëgg Waly Seck ndaxte fi ma Waly teg kon nit mooy jum loolu c'est passé passé na quoi c'est les passé xam ñu koy waxee mm-hmm. waaw mais nag euh, yàlla na fi yam sama xarit la sama rakk la man waaye defalaguma ko dara moom moo may defal rek yàlla ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. ci boobu mu nekk lien bu boo xam ne relié na leen parce que tey ji da ko tudde li nga xam ne moo di doom mu nekkatul jaaxaar ndax ku ci ku jël deretam duppe ko keneen euh, waal na kooku sori na ci moom ci sori bi mu sori ci yow bi mu amee naqaram ndax ku ne gis nga ko fi li ko fi daal est-ce que caat prem na partage ak moom loolu. waaw xam nga Waly day sama frère te xam a àdduna man a nit boo xam ne dama damaa ndaw ba pare noonu laa doone nit boo xam ne nii ndeysaan bëgguma di xool nit di sëgg dama bëri kersa te dama sama xol bi dafa taa ay ndox rek la te jooy damaa yomb bi soxna dara génn euh, bi euh, moom mi génne àdduna damaa dem bi coon seek génne àdduna suñu papa damaa dem waali Omar mooy waali jaale naa ko dégg waali jaale naa ko quoi sama rakk la man dam gis nit chaque jour kuy dem ci nax euh, bànneex war ngay sóor naqar bànneex ak naqar ñoo ànd te fii kenn dëkku fi kuy dund ngay de waali nit ku baax la maa ngi koy jaale naa ko jaale naa ko jaale naa ko jaale naa ko mais est que jaale bi yemul ci écran wala soit sa jël nga sa téléphone wala nga yëkkati sa def tànk ak tànk ba dama ko jaale ba tuddee ko doom jaale kay fa la mën a yem loolu neex na waaye dama ko jaale ba tuddee ko doom waaye bëgguma dara du ko naqari sama rakk sama frère la man sama bopp rek laa gëm ay way rek laa xam man xaw ma sax mënumaa communiquer ay wax sax mënuma ko man woy rek laa xam moo damay bëgg ñu may waxal man su bu bu doon. way bu doon woykat dangay toog ñu lay waxal man ci laay bokk man dañ may waxal ndax man mënu maa wax man ay way rek laa xam lu ma yor rek dama koy joxe lu ma mbokk ñëpp ndax fii kenn dëkku fi li fi jëlee yonent bi ak sëñ Tuubaa ma laajee Malick du fi bàyyi kenn waali sama rakka sama xarit la nit ku baax la nit ku gore la def ma bëgg samay mbokk bëgg ko samay rakk bëgg ko samay doom bëgg ko man sama doom yi sax dañuy toog si kër gi man duñ foyee sama woy woy sekk la ñuy sa way xam da nga mën a way pourquoi pas duñ say way samay doom laa wax mu jaam ñi dañuy fooye samay woy góor yàlla léegi yaay faali mais dama sama kër way waal la ñuy fooye samay doom euh, kaw fooye boobu Thiat Seck ko xam-xam dafa mën a woy mais euh, des fois duñu gis Thiat pas de grand théâtre wala mu dem song ji soraanoo xam nga wala def yenn sorti dafa am lu muy xaar wala visibilité moo demewul noonu. xam nga grand théâtre moom yàlla rek ma fa bu nit. bersi yàlla rek fay bu nit ku jot di nga dem fépp yàkkamti rek moo bon yàlla nañ ko fekk te yàlla na ngeen ko fekke yéen it grand théâtre u Thiat Seck loolu beneen affaire la moo tax bee jotagul rek te jot léegi yàggatul dara day am lépp loo gis ne ndànk-ndànk la lu jot yomb ndax nag euh, nongoloo taxawul grand théâtre de grand théâtre di am nangu loo fekk na dem na yàlla ko yàlla xaraaja na mais grand théâtre nañ ko fekkee nañ fi ne Thiat Seck génneegul album yóbbu nañ ko France Thiat Seck yóbbu nañ ko Allemagne yóbbu nañ ko Italie yóbbu nañ ko Bruxelles Bruxelles xam nañ koy waxee damaa jàngul nag yóbbu nañ ko fépp États-Unis daal laa demagul te mosuma génne album kon grand théâtre Thiat na fa dem àpp la rek heure baa jotagul que nekkul dafa retiré wu pour pour former ki nga xam ne moo di doomam ndax fan yi tout récemment rek gis nañ sa doom ni mi nga xam noonu lay percé ci musique ba instant bi sax nee nañ dañ ko da nga ko may kii di Coumba Gawlo Seck waaw Coumba Gawlo moo ko bëgg Khalil Seck bëgg ko Matar bëgg ko Matar bëgg ko rak Coumba Gawlo ñëpp ñu bëgg ko moo tax nag ku ma ne kii il faut mu ñëw sama kumba man dama doon fayal maam naar muy jàng ak Thierno samay doom mais bu ko kumba soxlaa yaayam woo ma téléphone ba waxtaan ak moom jox ko Fanta mbay sama jabar mais loolu du ci xaar dara ndax kumba li mu koy jox mélodie yi mu koy jox après ak fi mu koy teg moo koy fayal fi ne maam naar dañ continuer jàng mu ngi koy fayal man fayal fayal maam naar wàcc na ma école kumba a ngi koy fay Xalil Seck a ngi koy fayal muy jàng. mais ci wax jooju noonu fayal bi ci lañ wax ni que ni du question dafay jàng way moo tax nga yóbbu ko mais plutôt dañ ne Thiat Seck dafa gis benn intérêt moo tax tey mu mu mu jox ko Coumba Gawlo la non non non ban man Youssou Ndour bu soxla woon sama doom sax ma jox ko doomu Thiat Seck ma jox ko Wally Seck bu ne ma woon jox ma Amady Amady moom ngi toog ci jóg bi ñëpp nga gis moom moom boogaa la moom moom xale yi ko bëgg moom buy woy xale yëpp ko bëgg. dañ naan kiis ka caata ko jur ñëpp loolu la ñuy waxtaane kiis ka doomu caat la mais man Wally Seck bëggoon sama doom sax dama koy jox Pape Diouf bu soloon sama doom ma jox ko barke sëriñ Saliou kii di Youssou Ndour juuf Diouf Wally Seck buñ soxloon samay doom ma jox leen ko pour ñu teg ko ci code di ko teg ko ci yoon barke Serigne Touba. caat dafay nekk di nekk ci réseau yi di xool yaa ngi gis li nga xam ne moo di xew na ci tout récemment. que Wally euh, seet na xale bi wala bu déggante ngeen téléphone genre qu'est-ce qui s'est ma tuddee sama bi ma tuddee Ibrahima sekk mu ndaw sama doom bi woo na ma téléphone ba pare mënut a àggale samay man moom suñuy wax mënut a àgg mooy ma caat soxna yi dara lay woo soxna yi dara woo ma Njóogu Mbay woo ma Tumaane woo ma Gajaga woo may li kulim jiwum xaali gay Seex Anta ñëpp wax dëgg yàlla ak ay soppee Wally Seck caat de man de ba ci dal jàmm dal jàmm moo xam ne moom lu ne la ma doon yàkk dal jàmm dal jàmm lu ne la ma doon yàq waaye ndeysaan ne ma caat laa bëgg mais da juum mais dal juboo nañ juboo na ak ñëpp waaw mais am nga man moom jooy damaa yomb te waaye it jooy da ko yomb mu doon ko baax yooyu noonu ndeysaan du dara ndax dama juum te waale su ma juumul woon sax war naa ko tuddee doom war na maa tuddee doom te waale mën naa xëy su ko tuddee ma doom man barke Serigne Saliou man tuddee doom bi nga doom nii daf ma ko ngir gis tal daf ma ko ngir dara dafa nekk ci man te bu ma juumul woon dama koy tuddee doom man doom ju ma am rek samay mbokk laa ko ku sant Seck doom ju ma am mu sant samay mbokk laa ko tuddee samay rakk yaay samay mag samay dooy baay rek laa tuddee doom ki ma tuddee doom kenn la muy Mbaye Diagne Maria Sine may sa biige te kooku daf maa tuddee doom Mor mu ndaw mu ngi toj géejawaay Maria Sine may sa bigee Mbay Jaañ muy sama xarit tudde ma doom ma tudde ko doom ba géejawaay gépp caat lañ koy woowee fi ne nii moo tax it ma tudde ko doom kooku laa mos a tudde doom si xarit maa ngi doo ko tudde Waly Seck maa ngi doo ko tudde kenn beneen xarit boo xam ne sama nawle la sama lépp la muy Waly Seck te jar naa tudde doom nit ko baax la ndax daa fu fuñ fu ma teg bëgg ma télé bu mu toog ne caat te jàngalu ma ko woy jàngalu ma ko woy daa doon nu woy mu doon nit ku baax moo tax ma jur sama doom tuddee ko ak li may defal lépp fu ma ko fekk mu jël micro bi nga ma tiimale la may jox su ma dee bu ma dee jël micro bi si ginnaaw sax bi mbay si yor wala gars yi mu ne déedéet cat kaay jël bi am sama micro micro la may jox mu doon nit ku baax bëgg ma ma bëgg ko ay waykat dañuy bëggante moom moom sama complice sama lépp la sama rakka sama xarit la sama lépp la te waali daf ma dama koo bëgg daf maa bëgg dama koo bëgg dama koo bëgg daf maa bëgg loolu day am ci showbiz ndax woykat yu mag yi dañoo am ñoom ne ay xarit lañ woon waaye yàlla na yàlla def jàmm waaye ndeysaan ci biddante boobu gis nga li nga xam ci réseau yi maanaam boo defee nii nga yaa ngi ci tiktok bi wala soit ci internet bi te yaa ngi gis ñi nga xam ne ni ñuy yàqantee ci ci ci réseaux sociaux yi ba waral na euh, aw ama bi muy live démb mu ngi wax ni que man amul ku ma gën a xam ci àdduna ku dul caar ndax sama papa lépp ci moom la dooree ana tey lan ngay wax xamante boobu nga xam ne moom ak jigéen bi ngeen jigéen bi nga xam ni fësal na ko ci internet. awa lu mu wax dëgg la avant ma lu mu wax dëgg la ci wàllu sama diggante moom si caat lu mu ci wax dëgg la sama diggante moom mu ci wax rek dëgg la la ca des nag xaw ma waaye li muy wax moom caat sekk man ak moom caat sekk nangam lu mu ci wax dëgg dëgg la sama awa ama lu mu wax ci caat sekk rek dëgg la. aw dañoo yàgg aw dalal na ma màggal dalal te ma màggal màggal Touba sax bu jub see naa ma caat maa lépp lépp baax na ma ne ko lépp nice te moom ma njëkk a envoyé xaalis awaama na ma caat doo max su wateel ma maa ngi sant yàlla affaire yaa ngi neex màggal gi day neex si laay. comportement bi nga xam ne am na ko. si laay ñëw si wàllu coow li yi muy dund ak jaam yi góor yàlla yéeg ak ñi àndal loolu ñoom la concerné xaw ma ñu koy waxee concerné xaw ma nu ñu koy waaw loolu ñoom la te yàlla neen yàlla jubale ku ci wax ci lu rafet ndax xawuma fekkewu ma di jóob suma rakka awaama sama rakka te ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi suba lu coow li am la suba mën nañoo àndaat te dañuy àndaat barke sëñ Fallou aw xoolee ci ay waxam mi ngi naan damaa sonnal Sidy Diop damaa fa nekk temps euh, temps wu ngénte yaa ngi comprendre te tamit nee nañ dafa Sidy dafa nekk ci buntu këram di ko yàq ba waral tey coow li jur lu bare ba ndax boo xoolee ne ne ojo yu yàgg la mais boo dégloo ndax mi ngi naan màggalu euh, kooru daaw ba kooru ren est que noonu la war a comporter koo xam ni tey moo ko jëlee woon ci ngénte andi ko ba fi mu toll. xam nga man loolu du ma si sori quoi ndax damaa fekkewul te xaw ma si di sama rakk awa day sama rakk di sama jarbaat di sama lépp muy seex yaayam mu ko defal teraanga bu ne si di Diop doon jàmbaar nekk ci yoonam te ku yéenewul kenn jàmm ku yéenewul kenn jàmm doo am jàmm ku yéene ñëpp jàmm di nga am jàmm si di nekk ci yoonam garab ci ko lay fekkante man mi aw na ma dafa na première partie fi mu nekk nag yàllaa ko fa teg non nañ ko yéene jàmm mu nekk ci yoonam awaama mu ngi ci yoonam nañ ko yéene jàmm tey ñoom la fi mu ne nii man mënu ma ci sori ci wàllu seen détail mënu xaw ma lu ma ci mën a wax ndax man fréquenté wu ma leen man ñi ñi ma doon fréquenté ñëpp nag réew mi yëpp fréquenté nañ ma Youssou Ndour rek moo fréquenté wu rek ju Diouf ak Wally waaye ñëpp fréquenté nañ ma waaw. may wax doy na waar de. mais aw Ama yaa ko yar ndax tey ji jóge na ci Sidy tourné waat na ci bébé Eva ay wax yoo xam sax da ko doon menacé ndax boo xoolee bébé Eva nee na carrément moom tey viem bu méttee euh, lu ëpp awa moo ko teg te yow yaa ko yar mën nga ñu wax tey li nga xam ne moo di ko waa mais ñoom la rek ñoom ñooy ànd kay seen affaire la rek ñoom ñooy lijjanti seen mbir rek bébé bé xaw ma ne Eva toog naa di ko seetaan man mii sax di jooy man bëgguma gis kuy jooy parce que sëñ toog naa fii kër yi di di ko seetaan muy jooy ñu teg ko ma ne changé leen lii man damaa jooy keroog ndax boobu ma gis kuy jooy quoi. mais est mu comporté woo ak moom war na comportement le fait mu koy dagg saaga ndey di saaga sénégalais yi maanaam di dagg ay saaga ci réseau bi te loolu bu ko defee xañ na ñëpp la ko ñëpp la ko defal. waaw mais xam nga tey yàlla def na ne loolu ñoom la quoi ñoom la concerné man xaw ma comprendre ma quoi mais awa man li ma war a def def naa ko woo naa ko téléphone. waxtaan naa naa ko deux fois benn bi dama ko woo jotuma ko muy ma caat xaaral ma dégganteeg diw après maa ngi lay defaat signe mu pare ki muy dégganteel woo ma téléphone ma ñëwaat waar ko deux fois woo naa ko ñu waxtaan mu ne ma man kay man li damaa jaaxal sax xaw ma lii ku ko dugal ndeysaan nit ku baax la mm-hmm. mais dafa dëggu moom lu mu bëgg a koy génne lu mu bëgg a wax da koy génne comme Thiat Seck rek moom moom dama ko yar quoi sama doom la sama rakk la fii su Ama Baldé a ah di rakki baylaat baylaat yal na ko yàlla yërëm tax rek ko àjjana di ah Alaaji Mbay di jigéenu Alaaji Mbay di jigéenu Kabias Ifra waaye ñun baalu lañ dëkk waa tamit mu lim baaxul sax xam nga awa baax la yooyu ñoom la ko waa ñoom ñoo koy lijjanti rek waxtaane ko àndaat seen biir ndax sii di daa nekk ci yoon awa daa nekk ci yoon affaire yi nag li nga toll boo xam ne gars yi dañu jékki daan ne ay buzz ay nangam ay coow ndax man fi ne nii am na lu bëgg wax lu loo xam ne boo ko fi ne nii bëgg a bàyyi ba ndax vendredi damaa war a dem eh, émission émission Aziz Ndiaye bi télé télé Arbouraax. mais c'est possible ak Univers Info TV parce que ñëpp koy seetaan boo amee révélation boo def tey jii nii. xam ne bu ma mi dina yëngu. non loolu kay fi ne. doon ci ñamal tuuti rek waaye ajjuma si émission Arbouraax bi ma wax ko fa mais sànq sa biir wax dangaa wax que ni Awa Seex la te loolu Sénégalais yu bari xamuñu ko est-ce que mën nga ñoo wax carrément seexam ay son bi fan la nekk Awa seexam yàlla ko yàlla xare àjjana Awa mooy rek Yaasin Yaasin la bokkal ndey baay seen yaay doon muñ kat doon muñ muñkat mm-hmm. sëy sëy fi mu war a sëy doon sama yaay man mii awa jàmbaar la ci fan yu baax la bokk. kon suñu la déggee seexam dafa gaañu. waaw seexam dafa gaañu. seexam âge la parce que ñu bëri xamuñu ko. seexam bi muy liir lañ gaa la liir boobu la dem moom suñ suñu borom na xale amul bàkkaar mu metti trop awa dañ ciy waxtaan ci loolu quoi awa seex la mais nag euh, yàlla ko fi yàlla saxal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi sama xarit la. Eh. sànq sa biiri wax da wax ne artistes yëpp fréquenté nañ la. ci sa biiri wax. ani Mbaye Dollar. mu ngi fi doo nit ku baax ku baax nit ku baax la Mbaye Dollar foo ne ay Mbaye Dollar dugal nga ma ci lu ne lii. la ci lu mu demee nag. Dollar rek. ni ma ko bëggee. ba pare bàyyi ma ni dem ànd ak àndaat ak Padaros Padaros ani Padaros yow Mbaye Dollar mi nga téye nii doomu nday di baro doomu nday asan nonga doomu nday dal jàmm. bay dollar nga xam ne nii sama yére yi ma ko joxoon sax maa duma ci liggéey ay lii sama jasñeer yi ma ko joxoon ay waay mbay dollar maa duma ci liggéey maa doo ko jox euh, ñooñu ay mbay dollar foo ne. waaw ah, fu ngeen mbay sama rakka sama xarit la fi bu déglu day reeba dee sama rakka su ma koy woo léeg sax jabar ji laay woo su ma jotul mu jox ma ko ku baax la sama xarit la samay mbalak la mën a déglu bu ma déglu day reeba parce que doon jàmbaar mais nag comprendre naa ko ndax euh, ay conteneur dañ koy wàcce mbay di ci nekk benn nitam mu ciy liggéey du tee nag ñuy déggante nekk di jàmm mu ànd ak Padros Padros tamit doon sama rakk di rakki Pape Bou Pape Bou sama xarit sama rakk magi Padros moom moo ma doon teel paani mooy tëgg ay bool loolu démb la Padros maa ngi lay bégee moo nay moo frère nit ku baax barki démb la xew-xew bu rëy te mi xew daajal jël téléphone ma caat grand frère damay xew bañ a dem non man boo ma wooyee nii def ma dara dem ma fenn damay ñëw boo ma yëgalee bu dee voyage yi ju ma dem ma fen mu fekk ma fi defuma dara ngay jël sa téléphone woo ma damay jóg man daal dem ci luñ ma wóolu laa dul mën a def luñ ma wowul moom mun du ma ci dem waaw ndax nag kilifa laa waaye nag euh, mbay maa ngi koy béggee di ko ziar nan ko ay love sama xarit bi sama soxna si nuyul ma ko waaye war nga ma fan moom war nga ma war nga ma nag mbay ku baax la. non dama ko gëj gis rek maanaam bu ma gisul sama nit damay damay. dem na ngénte woon na la téléphone ni la pour. Padros. Padros moo doon xew non asafurla moo doon def mariage Padros woo ma dem ca après bu ma ko fekkee samay nit ñi ma àndoon ñëpp <clears throat> mbay laa fekk moom ma ak moom ma dugal ma def lépp dama caat yaa baax nit ko baax la nag dama koy mbalak ni mais nit ku baax la. Mm-hmm. nit ku baax la suma xarit la suma frère la sama doomu nday la doomu nday di baru doomu nday Padros doomu daal jàmm doomu day Assane Ndonga doomu day Assane sama manager maa ngi lay bëgg bu baax Mbaye Dollar daal na yàlla defal la jàmm yàlla nga bokk ci milliardaire Sëñ Tuubaa yi caat dañ faral di wax ni que euh, géwal wala soit sax waykat da daan boole ay nit maanaam di fekk diggante boo xam dafa ñagas suñu jéem ko defar euh, est-ce que tey jii nag euh, kooku mel ni genre benn bongoman nekk ci ay biir problème am est-ce que warul boole mais plutôt di féewale parce que boo xoolee coow li tamit tudd nañ ci nga xam ne moo di Babacar Bongo ba dañ ñu dafa taaj ki nga xam ne ma di bébé Eva est-ce que loolu mooy comportement. Euh, Babacar Bongo moom day sama euh, rak di sama xarit bëgg ma lool yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla wéral ko man de li ma gis si moom mooy si ne ci lu baax lay dox wax ju baax lay wax lu rafet lay wax nit ku baax la Babacar Bongo damay toog léeg-léeg ma jekk yi mu ma caat sa wéef gisus dara ma ne ko lii lan la. mbay li Babacar li maa fay dab mu ne ma sama mag nga dama laa bëgg man yow rek laa bëgg yàgg Wally Seck ku baax la mais daal en tout cas àdduna buñ ci nekkee daal xam nga lu am solo nit ki nga di nekk sa bopp te maanu affaire yu jigéen ji affaire yu jigéen la boo dee nekk góor yàlla àndal ak ñi nga war a àndal boo nekkee jigéen àndal ak ñi nga war a te kenn ku nekk nekk sa bopp ndax jaam ñi danga wax lu rafet sax ak mbalak ak kaf ñu dugal la ca ñu dugal la ci loo xam ne ni yow fekke woo tinoo Babacar sama rakk sama frère la di fa jaar di nuyuwaale euh, nuñ koy waxee ne waaye ki nekk Europe sama xarit mun a bongo lool moom it vie vie Vénia maa ngi koy bëggee Vénia di bëggee euh, rakku Lamine Samba bi Ousseyn ñoom ñëpp ak Babacar Bongo ak euh, Karbala ak képp kuy Bongo rek maa lay jox loxo di leen nuyu ñoom ñëpp dañ maa bëgg man tëkkat sabar yeeg Bongo maan yëpp ma bëgg man damaa fekke wala xam lu ma fekkee man ci lay mën a wax waaye lu ma fekkewul du ma ci mën a wax te bu ma fekke woon dara sax mu doon loo xam ne nangam du ma ci wax est-ce ce que fréquentation war na fréquenter ku ci mel ni Mame Ndiaye Savon Fanta Mboup ah, ah waa ak bébé Eva ak euh, ki nga xam ne mooy aw ama est-ce que cadre boobu noonu fréquentation war na nekk maanaam ba ñuy demalante dikkalante di ci ay wax tamit di ci am ci cadre bu ndax sànq sa biir wax da nga wax que ni que jigéen ñi nañu fréquenter jigéen ñi góor ñi ñu fréquenter góor góor ñi nañu fréquenter góor ñi jigéen nañu fréquenter jigéen mais ñun ci li ñuy dund ñun dañoo war jigéen ñi ndax jigéen ñi ñoo ñu yóbbu fi ñu nekk ñun man su may way bu fa jigéen nekkul góor du fa dugg man su may way su jigéen nekkul góor du fa dugg si waxin dama ne nañuy fréquenté ñu war a fréquenté mais ñun artistes yi bongo maan yeeg taasukat yeeg tëggkat sabar yi musiciens yi fu ñuy fréquenté jigéen ñi ñun waykat yeeg ñun ñëpp ndax jigéen ñi bu ñuy way ñoom la ñuy gis boo du nit nag bu dee ñëw ci ci moom non day toog këram il faut ñuy fréquenté jigéen ñi xam nga fi ne nii ni nga jongomaa yaa ngi neex mais yàlla na defal la jàmm même si sama xol bi daa sedd sax ah mais dëgg la yaa ngi saf nii yaa ngi neex nii man fii nii saf nii man émission bi sax ma soxla dañu koy dagg rek ñu toog waxtaane ko nit ko baax nga comment voulez adduna lii la il faut ñu fréquenter leen waaw mais bu ñu nekkee rek fi ñu fay téléphone yi téléphone yëpp fay ma jël ko denc. buñ paree ñu continuer kaf geeg reeg yi il faut ñu fekkante ndax yéen yéen a yor bagage yi yàlla leen fi yàlla bàyyi jigéen ñi jigéen ñi suñu yaay jigéen mooy suñu yaay mooy suñu lépp man de jigéen ñi yàlla leen fi yàlla saxal ndax mooy suñu ñooy suñu yaay il faut ñu fréquenter leen bu ñu leen fréquenter di leen fréquenter léegi da ngay sawar di ñëw soirée indi ay nit eh, dal jàmm foo nekk Assane foo nekk Assane Ndongo foo nekk Idi Bara fu ngeen nekk ñoo leen baali caat sekk boo leen yëgee bu dee da leen di yëg waaye boo leen yëgul ngay tëgg soirée ay góor yi sa nekk fa muy yéen góor ñi fu so bu jigéen nekkul ñu fa dugg de góor yàlla yi fu jigéen nekkul lu ñu fa dugg aar bi nag dañoo nekk ci aar nekk ci musique fekk ko fi di ñaanal suñu pàpp yu sundur yàlla bàyyi ko fi yàlla saxal ko fi ndax mooy suñu papa mooy suñu lépp royukaay la képp kuy woy di suñu papa yàlla la fi yàlla saxal di ñaanal papa hélas fay yàlla bàyyi ko fi di ñaanal suñu papa yi woy yëpp yàlla bàyyi fi mais ñun daal ñu si yoon bi nekk ci ay ndaw lañ ay xale lañ ay jeunes lañ mais yéen jigéen yi il ñu leen di wormaal di moytu tamit di toog di wax ndax ñun dañuy enregistré gars yi dañuy moytu góor yàlla yi yaay faal yi dañuy moytu di toog di wax ndax da ngay wax ñu lay enregistré ndeysaan te li ngay wax da koy seq say nit jataay bi neex loolu ñuy kaf di ree lan moo tax euh, Thiat Seck activité am yëpp daf ko daf ko bàyyi maanaam Pikine rek la koy defee pourquoi pas du génn des fois dem laal baara mun ñi waa waa dama nekkoon ci benn gaam affaire dàgg dama ne soxor iñaan xarit lan laa la def lan laa la wax ba nga may woo di ma dugal ci musiba naaru si musiba naaru laa soxor iñaan day doon ku réer laa ngoog pexeem laa ngoog pexeem di jëf lu ñaaw bu la jekkoo ba sànq la moytul ma pexeem noonu xarit am na waaye dafa jafe xarit am na de mais dafa jafe kon fu ñu di toog del def attention di wàññi say wax di wàññi say communication ndax gaa yi dañoo seen téléphone di di euh, manipuler xaw nu ñu koy waxee fekk dañu lay enregistré kon gars yi nañu leen di moytu góor yàlla yi di leen moytu yaay faal nañu leen moytu ngir jëm Sëñ Tuubaa yàlla na yàlla defal leen jàmm réew mi tas na. fi nekk dund moo tax maanaam dañu mës a enregistré wala ay audio daal di fuité. man kenn ma enregistré. déedéet déedéet xaw ma nu ñu koy waxee ndax sa audio mës na fuité wala. filité. fuité. man damaa jooju xaw ma nan dem sama jooju dem ma sama jooju dina dem rek man loolu laa xam sama jooju dem xam dem lu baax laa xam man su ma toogee nii mën naa toog nii classe ñu waxtaan ma mbalak ni bu ñu toogee bu kenn tudd woykat sama kanam kenn tudd kenn barki sëñ Touba barki Alaaji Fàllu Mbàkke laaj ko ñii ak ñi nekk géej waaye ñi xam ne nii sama nit lañ wóor na sëñ Touba man sama wax du génn na xam du génn. kenn tudd waykat boobu jeexee ba jeex na jeex na mais doo tudd Wally Seck sama kanam doo tudd Pape Diouf doo tudd Youssou Ndour doo tudd kenn doo tudd Sidi Diop mii sama rakk doo tuddu Tarba doo tudd Elas képp kuy way doo ko tudd man su ma toogee bàyyi Cheikh sama xarit doo ko tudd doo tudd Amar doo tudd Moussa Yaay Joor. moo waral sa activité yëpp la nga nga nga ko biir Pikine des gis Baara Mundi wala soit euh, Faye. waaw Faye tëgg naa fa tëgg naa fa tëggati fa war nañ faa dem après Korité sax lépp ndànk la rek. xam nga almadi dëgg la waaye sa gox bi nga dëkk da koy téye ba pare muy banlieue ñun banlieue lañ gëm man banlieue rek laa bëgg muy Géejawaay Pikine Parcelles Diamaguène Grand Yoff man yooyu daf may neex man yooyu laa bëgg après doo ko dem feneen nag lu tax may jege waa Mbàkke di ma woo ma leen tëggal soirée entre dix mille VIP vingt mille table cent mille ay tabaski après tabaski wala korté tax may jëkki déplace dem ba France di fa tëggi France kay moo gën a neex faayef ku dem France kay di fa tëggi kay France mu ma dem àgg gis Mbappé ñu taf ko <laughs> Mbappé mu ne waa mi Mbappé mii moom kii kii moom kii moom rek lañ fi def ma gis Nday Maar si gën si si wetam waa mais ku dem France kay dem Allemagne di fa tëggee Bruxelles ak ay itali moom koy moom moo gën a raw looloo raw ay Almadi Almadi nag jaam ñaa ngi fay dem di fa tëgg macha allah mais nag man caat sekk tëgg naa fa. mais lépp ndànk-ndànk nag damaa war a génne album ndax mosuma génne album travail liggéey ndax nee nga ma grand théâtre dama guma grand théâtre dama guma ma xool yooyu ba pare nag nekk ci liggéey saraanu sax dama ko a lan lay xaar ci génne album parce que bi mu way na xale yi kenn wayul. damaa bëgg nag album bi ñu togg ko ba mu ñor rek na ñor rek ndax album bu ñoree bu ñoree ba ñor ah, comme sama waaja abu ci booloo ba mu génnee album ñëpp a dama xool bi laa sedd te moo sama xew doom moo woy xewu Cerno maam Cerno moo woy xew toujours ci li nga xam moo di actualité xam nga yàlla dafa def nag ngeen nekk ay pot de voix te ku ne xam na ne bientôt rek incha allah ñu daal di jëm ci li nga xam ne moo di vote bi am ah, na lan ngay sensibiliser ñi nga xam ne ñooy askan wi ci jàmm ak dal. waaw maa daal jàmm am ci réew mi te toog ci réew mi daal te vote bi yëpp yàlla na si jàmm am nit ñi vote ci jàmm kenn ku nekk. kay voté yow yaay dugg ci bureau ba ngay voté tànn ay kayit def lu la neex ci ruq ba ruq bi ñu lay dugal te am base man yàgg naa voté de. ah mais voté da ngay dugg si benn ruq baas lañ lay muur yow kese yaa fay nekk di tànn lu la neex génn joxe yow mii voté bul wax kenn ne diw laay bu dee kilifa nga comme Thiat Seck apport de voix xam ni koy waxee porte porteur de voix yee man moom duma wax kenn ku may voté mais man ki may voté man rek maa koy xam mais ku toog ci réew mi ku yàlla jox nguur gi jox la lépp nga falu. kan ma ko de. ma soxla kay Malick Gakou doon président moom ndeysaan mais nag euh, yàlla na ko yàlla def président si barke Sëñ Fallou man ma soxla Malick Gakou doon président man Guédiawaye laa dëkk muy sama papa di sama mag di sama tons ma soxla moo doon président barke Sëñ Fallou ndax damaa defal lu ne. Ah, merci beaucoup Thiat ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi la ndax ku ne xam na ni weeru koor moom dafa nekk weer boo xam dafa xaw a gàtt maanaam activité yëpp boo feeree guddi lay nekk donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, di la wax euh, am nañu contentement dalal la biir Univers Info TV di am mbégte encore comme ni ñu koy waxee saa su ne donc damay wax ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers Univers Info TV di leen wax daw leen gaaw ngeen aimer abonné liker partager bu ko defee ngeen mën a jot information à temps réel merci beaucoup